Brasil! Né?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 amé seul bu ndaw. jur na nga def. maa ngi fi. lan nga may doye jam la xana na ko lo bu la joxul wax la. mo def nank rek. mais non à chaque fois néna la boo ma soxlawoo fekk ma suma kër. loolu yëpp dëgg la mais tay ji ni mom du du du du bisu wax ci kër daal. ko lay déglu lu fi mu toll ni dina ñoo xam nga ne tay ji boo ma woo bu ma la wowe kay ñoo ma sa kër sa parce que dafa am lu tax moo tax ñëw ma sa biir kër tamit jëla sa temps rek. Encore what? C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. ci loolu. ça va. ñaw mbaam. xanaa boo wax si yaay ñaw mbaam. baam damaa jug itam sama xarit nga waaye li nga sant nii lan la lii tamit. luy tànwati laa ràcc. Wally Seck day def daf li gën ay baa laa yaa ngi fëlaale ci tàngaay bi ñaf mais sële mu ndaw yow kii moo tax nga may woo. waaw yow tamit nag lan la. ah mais non déedéet. kii mënul tax nga yàqloo ma sama énergie lepp ndax ki. Ki jar na ma la la lay xam la la bëggoon yéen ñaar jàmm ja ngeen amul bu ñëk tay ji ni la bëgg mu continuer ma mu raw ba ngeen amul ndax yow bu faté ni ci neeg ba ya ma waxoon ki yaay mom té moy yow té kon donc tey jii nii mënuma comprendre di dégg ci mbedd bi yeen ñaan ngeen di xiro ko ŋaayoo. am naa droit wolo la djubole len té xamna te sumay wax ak yow di ma déglu. ndax kii moom xam naa ne suukaram saful mais yow moom bu may wax ak yow di ma déglu bu baax te li ma bëgg mooy am tey maa bëgg yéen ñaar ngeen continuer ni ngeen meloon nekk ci jàmm. parce que yéen ñaar ay doomu nday ngeen. kii ba muy doog a jóge dëkk ba di ñëw fii yaa ko dalal bul fàtte loolu comprendre kii tey jii nii soo ko bàyyee day gën a sàmp yaa ko mën a dimbali tooxi na bu nekk nag dugg na ci dugal la ci yow mii mais tey yaa ko mën a jàppale comprendre Ya ko mën a dimbali El Pocho ngi nii sa doomu ndey la mais sële mu ndaw kii li def ma ba ko ku ma bàyyi mu ndaw def ma def na lu gën pire loolu mais teewul da nga muñ sama diggante man ak yow lan moo ko bul fàtte loolu jàppale ko yéen ñaan ay doomu ndey ngeen sële bu ndaw man daal xam naa bu doon kii moo bu ma xamoon ne kii tax nga may woo fi dama ko bu ndaw xam sa biir kër tamit ko El Pocho yow tamit dégâts yi nga def yëpp ah moom mën na la comprendre mais yow tamit parfois yaa ci mën a jàpp. su ma la woowoon këram doo ñëw moo waral ma taxawaay si mbedd bi pour ngeen jublu damaa bëgg ngeen nekk ci jàmm mën na nekk walla mënut a nekk. waxaa waxaa rek. dama wax kay moom ndax xam naa ne ñëpp jubóole nañ leen ngeen ne yéen daal doo nekk ci jàmm man na xanaa di ngeen ma rus tuuti te damaa bëgg yéen ñaar xam naa leen yéen a mën a am waxtaan leen ba jub maa ngi dem te après ma woo ma lah naro apa woo à Paris Sële bu Ndaw. ah Sële bu Ndaw Sële bu Ndaw Apa naro? nga de. yow jubóo leen rek ba pare. Apa baax na mbaam. après naa la woo. ko njaamu mbaam de. Sële bu Ndaw Sële bu Ndaw. yow naro moytul xam nga keroog jàpp naa la fële mbot la dóor la ba nga nekk nii. te waxoo dëgg doo ma def dara. xam nga keroog mbot la fële ba nga am fa gàcc. keroog baal li sa sa nga bi du yow ma jàppale rusloo la si kanam sa kanam nawle nga naan yow yow nga ma defoon nekkul li nga ma defoon mu def mooy pousse ma radi naa sama verre de bail naa ma rëddaat sama rëddu bail nga naa sama sa rëddu bail gauche ak droite lépp def naa ko pilis nga xool ñàkk fay naan pilis ñàkk doo dara dama lay dóor ba nga nekk nit fii sëll bu ndax dem na kenn nekk fi man yow rek fi nekk la fii nii ko def du nga moom bu baax ngay mel kenn xamul loo tegle nii rek kenn du yow noonu nga bëggee woon jiw man bëgg naa la booy booy booy mais booy. non booy booy manqué woon nga ma nag. loolu toxam. mais sa teel a jeex surtout sa affaire yi baa si diggante bi maa ngi àddu. booy ba lii lii sa bàjj naka moom. li ngi ci dëkk bi lu ko fi indi. ay ay bàjjoo.